alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. walhamdulilah wa ma tawfiqi illa billah. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد إخواني الأعزاء حضرات السادة العلماء والأئمة والمثقفين الباحثين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لشرف عظيم لي في هذه الأمسية المحمدية المباركة أن أجتمع بكوكبة نيرة من العلماء والمثقفين والمفكرين ixtifaalan wa ixtifaan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa idhaaran lilmahabati wassurur bi yowmi mawlidihi alladi min xilaalihi taxarara alinsaaniyatu jamaa qul bi fadlillahi wa bi raxmatihi fa bi dalika falyafraxu wa xayru mimma yajmaun موضوع محاضرتنا اليوم دعوة إلى الله تبارك وتعالى على ضوء الكتاب والسنة وتعاليم الشيخ رضي الله عنه وقبل الخوض في الحديث لا بد لنا أولا من معرفة معنى الدعوة فكلمة الدعوة ورد في القرآن بمعان عدة منها الطلب والنداء والسؤال والحث والتحريج والاستغاثة والأمر والدعاء كل هذه المعاني على تعددها تعود إلى أصل واحد وهو الطلب واصطلاحا هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير الحقوق والواجبات مع الاعتراف بالخالق والبر بالمخلوق وقيل هي الحث ala fi'li alxayri wa ijtinaabi alsharri wal amri bilmaarufi wan nahyi ani almunkar fa daawatu laha makaanatun azimatun fi lislaam bal hiya afdalu maa yumkinu lil abdi alqiyaamu bihi bi dalili qawlihi taala wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalixan wa qaala innani min almuslimin fa hiya asaasun min usus intishaarihi wa ruknun min arkaani qiyaamihi fa lawla daawatu lama qaama haada diin wala intashara fi laalami bi asrihi fa min xilaaliha faqad yataakkadu lil insaan an alsharaa'ica kullaha tadcu ila amrayni tacdiimi alxaaliqi walixsaani bilmaxluuq kama nassa bi dalika cheikhu lislaam wa barakati l anaam fi xutbati jazbul ahbaab ila hadrat rabbil arbaab allati alqaaha fi madinati kaduna nigeria ama 1391 id yaquul kullu rusuli ijtamau ala cheyain kullu sharaa'ici tatadammanu hada chey al awalu taazimu alxaaliqi jalla wa ala wa thani alshafaqatu ala alxalq wa ama subulu li taxqiqiha fa hiya muxtalifatun bi ixtilaafi althaqaafati wal araad fa kullu daa'in lahu minhajuhu alladi yaslukuhu fi tariqi daawatihi ila allahi tabaraka wa taala kama anna almaduwiina muxtalifiina wa mutafaawitiina aqlan wa tafkiran wa shaxsu ida axtaarahu allahu tabaraka wa taala li tabliigi amrin ma laa budda lahu an yumayyiza bayna almaridi walmunkiri walxaasidi waljaahili ila axirihi أما المواضع التي يجب أن يهتم بها الداعي من خلال دعوته مختلفة ومتنوعة باختلاف الثقافات والطبقات والأعراض كما أسلفنا فالداعي الإفريقي مدعو إلى التفكر في مواضع ذات أهمية لمجتمعه وأبناء جنسه ويؤكد ذلك قول شيخ الإسلام رضي الله عنه إذ يقول وأنا أرى أن المسلم الأفريقي مدعو إلى أن يفكر في موضوعات ذات أهمية ملموسة fa amaamahu mashaakil muaqqada fi mayaadin alfikri walthaqaafati walijtimaaci walictisaadi walsiyaasa والمسلم الإفريقي مدعو إلى أن يخوض معارك الجهاد الأكبر لوقاية نفسه وأهله من النار وليستمر تقدمه الروحي وليزداد إيمانا مع إيمانه فعليه أن يقوم بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ليهدي الله به من حوله من الوثنيين wa man taxatafahum almasixiyuuna min alafaariqati bal wa gayrihim waliyahdi allahu bi shaarijina abnaa almuslimina alladina hajaru almasajida wa madaris alilmi wanxarafu maa tayaari aldawaam alwaafidi min ifriqiya wa amerika bi ashkaalihi almutacaddidati wa taxtiitihi almuxkami alxaddaac والصفات التي لا بد أن تتوفر في الداعي الناجح أولها العلم فالعلم هو أول خطوة في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن مادة الدعوة العلم والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدون علم بكل تأكيد إفساده أكثر من إصلاحه فالشريعة الإسلامية لا تجيز أبدا للإنسان أن يعظ موعظة فارغة من العلم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني walaysa almaqsuud an yakuna daayi mutamattian wa mulimman bi kulli ma fi lislaami min ahkaam bayt annahu la budda an yakuna xabiran bilmadda allati yaduu ilayha wa mutamattian bi maarifatin salimatin saxiixa faqad bawaba alimaamu albuxaari ixda abwaabi kitaabihi saxiix albuxaari bi baabi alilmi qabla alqawli walamal muakkidan anna martabata alilmi muqaddamatun ala alqawli walamal fala yuctabaraani illa bihi liannahu shartun fi sixati alqawli walamal qaala taala faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambika walaa yakuna daayatu ila allahi mustaqiman xakiman illa bi ilmin sharci wa ilayhi yushiru cheikh alislam fi ixda rasailihi bi anna mashakila bacdi duaat fi ifriqiya yatalaxasu fi amrayn عدم الكفاءة العلمية للبعض وتطاول البعض على تراث الأمة وصلحائه وأئمته ونص قوله وأمام المسلم الإفريقي مشاكل في محيط الدعوة الإسلامية بالذات li wujudi baadi duaat aljaahiliin almutashabbihiina bimaa lam yucta wa baadu alulamaa duaat allaziina yujarriuuna alaamata ala altatawuli ala turaasi alummati wa ala sulaxaa'ihi ثانيا السلوك الصحيح يجب أن يكون سلوك الداعي جاذبا للمدعو له وأن يكون قدوة صالحة وأسوة حسنة فيما يدعو إليه min alqawli walamal wa mundabitan multaziman xata yetasanna lilmadcuwi an yaqtadi bihi liann aliqtidaa amruhu cazimun wa xatirun fi aanin waxidin fa ruba qaa'idin ahlaka almuqtadi bih lidalika la budda lahu min binaai silatin maca allahi tabaraka wa taala liannahu ida lam yakun ladayhi silatan qawiyatan billahi tabaraka wa taala lan yakuna lahu atharun fi dacwatihi fa ddaaciyatu kullama kaanat silatuhu billahi aqwa kullama kaana daawatuhu awdax wa am wa am qaala taala wattabic sabila man anaaba ilaya wa qaala wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bilgadaati walcashi yuriduuna wajha thalithan alshajaaca تأمل أخي قول الله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فرغم كثرة الصفات التي يجب على daaciyatan yattasifa biha lam yamdaxu alquran illa bi sifatin waxidatin wa hiya alshajaa li ann addaaciya ida xaafa axadan gayra allahi saqatat addaawatu wa fasadat li annahu inda idin sayaskutu an alxaqi tamalluqan wa sayatakallamu bilbaatili tamaan wa xawfan walciyaadu billah raabian alxikma wa hiya min alsifaat allati la budda liddaaciyati biha li annaha jawharun saminun fi hada almaydan wa ala qadriha tatajaawabu nufuus wa tatafaal fa rubba xaamili fikrin salimin naqiyin xajabahu an tawsili afkaarihi lil xalqi tariqata taslimihi falxakimu waxdahu alladi yacrifu kayfiyata tacaamuli maca kulli maxluqin ragma ixtilaafi caqliyatihim wa tabaqaatihim wa mabaadiihim wa man yuuta alxikmata faqad uutiya xayran kathiran walxaasilu an alxikma malmaxun min malaamixi alchaxsiya addaaciya li annahu min xilaaliha yakunu ladayhi wayu taam bi mutatallabaati alasri wa wasailihi fa kullu asrin lahu alatuhu wa wasailuhu wa kullu zamanin wa makanin lahu turuquhu fi daawati ila allahi tabaraka wa taala udcu ila sabili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wa jaadilhum billati hiya axsan fa bima raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lanfaddu min xawlik hada waqad warada ayatun cadidatu laa tuaddu wala tuxsa taxusu ala daawati ila allahi tabaraka wa taala minha ala sabili almisal lal xasr waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alxayr wa yaamuruna bilmacrufi wa yanhawna an almunkari wa ulaika hum almuflixuun wama kaana almuminuun wama kaana almuminuuna liyanfiru kaafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqahu fi ddiini wa liyunziru qawmahum idaa rajacu ilayhim laallahum yaxdaruun kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna ani lmunkari wa tuminuuna billah wa amma alaxaadiis addaalatu alayha fa cadiidatun minha qawluhu sala allahu alayhi wa sallama balliguu canni walaw aayatan fa rubba muballagin aw caamin saamicin wa qawluhu man dalla calaa xayrin falahu mislu ajri faacilihi wa qawluhu wallahi la an yahdiya allah la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumri niam kullu hadihi al ahadis wal ayat tubayinu fadla daawati wa makanataha fi lislaam wa yakfiha fadlan wa makanatan annaha amalu lambiyai wal mursalin wa xitaaman ashkuru lajna almunadima li hadihi alumsiyat almuhammadiyati almubarakati wa ala rasiha رئيس اللجنة المؤتمرات سيد أحمد بكار والسيد الأستاذ سيدي علي بن خليفة الحاج عبد الله رئيس اللجنة العلمية الشيخ تجاني بن الشيخ الحاج برهام يس ومن لف لفهم ممن سبقت فيهم العناية جزاهم الله خيرا ci tënk ci gàttal liñ doon waxee woote ci yàlla naka la ko alquran ak sunna ak nan la ñëwee ci jàngale baay baata bu wootee rot na ci alquran di firi maanaa yu bari yu fasantikoo waaye lépp dafay dellu rekk ci sàkku ci nit ki mu def lu baax bàyyi lu bon wala mu def liñ ko digal bàyyi liñ ko tere wala mu jéem a xéwénal digganteem ak boromam ki yàlla su paree rek jéem a defar digganteem ak jaam yi woote li ñuy yaatu yëpp ak liñ ko melal yëpp loolu rek lay firi mooy nga fexe ba sa digganteek yàlla baax boo paree itam nga fexe ba sa digganteeg jaam yi baax ndax Baay sax wax na ci tafsir ne yàlla bi mu commencé téere bi bismillah commencé ko turam tëjee ko minal jinnati wan naas li mu bëgg a wane rek mooy ne ñaar rek a fi ne mooy soo paree ci li la yàlla sant nanga nga fexe ba defar sa diggante ak bépp jaam te woote dafa am place bu mag ci lislaam boo xam ne nii alquran yaxal na ko ndax yàlla wax na ci alquran ne wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin kan moo gën a rafet wax koo xam ne mi ngi woote jëm ci yàlla di def lu baax di tere lu bon ba pare ne ci jullit ñi laa bokk mu ne kooku kenn gënta rafet kenn gënu koo rafet wax kenn gënu koo rafet jëf te woote mën nañoo wax ne mooy fondement bi tax lislaam taxaw ndax bu taxutoon nag moom konoon diine ji du tasaaroo ci àddina konoon du agsi fii sax ci senegal waaye moom mooy essage bi nga xam ne nii moo tasaare diine fépp ci àddina kon liggéey la boo xam ne amul benn liggéey bu ko féetee kaw amul dara lu ko gën a màgg ndax mooy liggéey yonent yi te ñoom lépp lu yàlla bind ñoo ci gën a màgg te Baay wax na ci benn leetaram ne yonent yi yàlla mës yoon yónni yëpp ñi ñëw fii sharia yi ñu indi yëpp ñaar rekk lay wootee nit lay oo nit ki mu jëm ci bi ci jiitu mooy mu màggal aji bindi gi ci yàlla ñaareel bi mu rafetal jëm ci mbindeef yi mu ne bépp diina bu fi mës a ñëw rek ñaar yooyu ngay oote yoon yi nga xam ne nag kii oote jëm ci yàlla dana ci sóobu ay yoon yu fasantikoo la ndax ñi ngay woo ci boppam dañoo fasantikoo seeni làng dafa fas fasantikoo seeni xeet fasantikoo seeni raas fasantikoo am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo réer war ngaa xam naka nga mën a naka ngay jëflanteek ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne nii ay weddikat lañ ku wax dara ñu weddi la kooku itam war ngaa xam nan ngay jëflante ak moom am na ñoo xam ne dañoo añaan kooku itam war ngaa xam ni ngay def ak moom am ñu feebar loolu yëpp force nga xam ni ngay jëflanteeg nit ñooñu sa woote jëm ci yàlla mën a am résultat bi nga xam ne nii moom lañ soxla te Baye wax na ne fii ci soowu jant Afrique soowu jant muy senegal wala ak dëkk yi ko wër problème yi nga xam ne nii jullit ci Afrique bi am na ko dafay dellu ci xalaat ak saqaafaam culture ak ak ak ijtimaa ak wàllu koom ak wàll politique problème yooyu jullit yi dëkkee fii mu ne dañ koo am kuy wootee jëm ci yàlla war ngaa xam ne ñi ngay woo problème yi yëpp ñu ngi ci ñoom bu ko defee nga xam nu ngi leen dimbalee bañ génn ci problème yi boo leen ci munta génnee itam nga xam na ngay waxee ñoom ba bu lee yokkal yeneen problème ci kaw problème yooyu nga xam ne nii am nañ ko kii woote jëm ci yàlla nag war naa am ay melo yoo xam ne nii moom la war a melowoo bi ci njëkk war naa am loo xam ne war na koo xam ci xam-xam war naa nekk boroom xam-xam même su fekkut su fekkee ne xamut axkaam yi nekk ci lislaam yépp li muy woote jëm ci moom war na koo goreel war naa xam loolu ndax nit ki li nga amut mënoo koo joxe te sharia daganalut mukk nit ki di woote jëm ci yàlla woote boo xam ne nii ci sa bànneexi bakkan rek nga ko teg tegoo ko ci alquran tegoo ko ci sunna amut ndëslaay tegoo ko ci dara di wax lu la neex loolu sharia daganalu ko nit ki yàlla dafa def ci moom xel sooy wax war ngaa wax ak xelam te wax ak xel yi doomu aadama mooy nga wax ko loo xam ne nii tegu na ci alquran tegu na ci sunna lu xel mën a jàpp la ndax imaamul Buxaari ci téereem boobu ñuy wax saxiixul buxaari am na bunt boo xam ne nii mu ko tuddee baabul ilmi qabla al qawli wal amal maanaam bunt tëb xam-xam njëkk wax ak jëf kon nit ki bara moo wax wala muy jëf war naa am xam-xam ndax su fekkee ne nii amul xam-xam bu waxee dana réeral ay nit bu jëfee itam jëfam dana réeral ay nit moo tax yàlla ne kii woote na wax ne qul haadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittabaani man maa ngi nii woote lii mooy suma yoon maa ngi woote jëm ci yàlla teg ko ci xam-xam ak basira bu leer ñi man ak képp ku ma topp Baye wax ne ootekati Afrique yi ñaari problème lañu am ñi ci ëpp ci ootekati Afrique yooyu mu ne dañoo am problème yi xam-xam seen xam-xam matut ba pare ñu ngi xoo nit ñi di leen réeral ñaareel bi itam am na ñoo xam ne xaw nañoo jàng tuuti ba xeewu ci xam-xam waaye seen xeewu googu toroxtaane la leen gën a yóbbee ka njëriñ ndax bañ xeewoo rek li njëkk a def mooy songu wali yi ak songu turaaf yi nga xam ne nii mag yi liggéey nañ ko ñooñu itam seen xeew boobu amul njëriñ ñaari problème yi bokk na ci problème yi nga xam ne nii africain bi euh, ootekati africain bi am na ko bi ci njëkk mooy ñu bari ñuy oote amuñ xam-xam ci li ñuy woote ñaareel bi mooy ñaam xam-xam gëm nañ ne ñi fi jiitu woon liñ liñ def baaxut te ñaar yooyu yëpp problème la ñaareel bi ci jikko yi nga xam ne kuy oote jëm ci yàlla war na koo am mooy war naa am suluku saxiix maanaam war naa am soobu bu baax war naa nekk nit bu baax ku nekk ci yoon wu xiw boo xam ne soo ko toppee dana la mën a baaxal ci baaxam googu ndax nit boo koy topp force nga jël ci moom dara saagakat sax booy ànd ak moom heure bu nekk bés booy saaga doo ko tey dangay tëb rek saaga rawatina nag kuy woote jëm ci yàlla war naa am war naa nekk royukaay war naa nekk référence ci façon bi muy waxee ak bi muy jëfee war naa nekk itam koo xam ne nii digganteem ak yàlla wér na maanaam li ko yàlla digal mi ngi koy def lim ko tere mi ngi koy bàyyi ba nga xam ne ñu topp ci moom danañ mën a roy ci moom pour jumoo ci moom ñetteel bi ci jikko yi nga xam ne kuy oote jëm ci yàlla war na koo am bokk na ci mu am shajaa maanaam mu ñemee bañ a tàppet ndax nit su fekkee ne dafa ragal buñ ko nappee mën naa noppi ci loo xam ne daf cee war a wax wala sax mu bëgg ay nit kontaan tax koo noppi wala ñu di ko dara bëgg koo jox mu war a wax ci dara du ci wax yooyu yëpp ootekat bi jëm ci yàlla war na koo moytu war naa am ñeme gu mat sëkk waaye ñeme gi du tax nga xotti xormaay kenn wala nga dugg ci loo war sa dugg waaye daal lépp luy dëgg war nga koo wax lépp luy safaan itam war ngaa fexe ba dara bu la tax nga noppi ci ndax ku noppi ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi na seytaane bu muuma la ñeenteel bi war naa am xikma war naa xerañ mu ci aji oote gi jëm ci yàlla ndax koo xam ne nii xerañut mënta ràññeele xeli ñi muy woo mënta ràññale xeli ñi muy woo ku mu war a wax lii dana la wax lee ku mu war a wax lii mu wax la lee dana jaxase ay mbir yu bari yoo xam ne nii bokkut te xakim rek moo mën a xam kii may woo nii weddikat la wala kii may woo nii jaahil la wala kii may woo nii borom xam-xam la ñooñ ñëpp façon bi leen war a wooyee bokkul ku nekk ak façon bi nga war a jaar ak moom ba oo ko te nit ku amut xikma ooteem dana néew lool pour mu réussir ndax dana jaxase yu bëri nettali nañ benn xissa nit ku nekkoon Europe di woote jëm ci yàlla benn tubaab ñëw taxaw ne ko damaa bëgg dugg ci diine ji mu ne ko waaw bi mu ko joxee baati seede yi ba pare ne ko li ngay njëkk def mooy da ngay dem sangu ji ndax yow sobe nga sobe ku sobe war sa tudd baati so xam nga saaga na ko ba pare teg ci ne ko ñaareel bi li ñuy def mooy dañ la xaraf waa ji ne ko ay ah, yéen seen diine ci sax nga bëgg a yóbbu sama fit mi naan maan sobe nga dañ lay xaraf ak dañ lay nag man man bàyyi naa xam nga kooku amut xikma xamut nu muy wootee jëm ci yàlla ndax ragal loona kooku ba mu génn ci diine ji moo tax xikma aji woote ji dañoo sopp ci moom mu am ko moom la yàlla di wax ne udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati alxasanati wooteel jëm ci yoon yàlla ànd ak xikma ànd ak itam wax ju rafet laaya yi nga xam ne wàcc na ci alquran di woo nit ñi pour ñuy wootee jëm ci yàlla ku nekk ak sa xam-xam fu mu yem bëri na lool képp kuy woote jëm ci yàlla na nga wootee sa kem xam-xam te li nga xam bu jeexee na nga nopp bu ci yokk leneen loo xam ne nii xamoo ko ku nekk ki nga ne war nga koo mën a dimbale ci li nga xam ne nii xam nga ko te xamut ko waaye nag boo gisee ku la gën a xam bul xëccoog moom loolu bari na lool wal takum minkum ummatun yadowna ilal xayr laaya la ci laaya yooyu wa maa kaana al muminuuna li yanfiru kaafatan laaya itam itam tum xayra ummatin uxrijat linnaas yi yëpp ay laaya la ak ay ahadis yu bëri yoo xam ne nii dafay soññ nit ñi pour ñu xoote jëm ci yàlla ndax ki xam war a wax su waxul ki xamut dana wax te su boobaa ki xamut kum réeral rek yow mi xam sax am nga ci wàlla ndax boo waxoon tey xëy na moom du ñemee am fiti taxaw wax waaye noppi gi nga noppi may na ko fit ba moom mu taxaw wax yaakaar naa ne bàkkaar boobu lu ci def itam yow am nga ci sa wàll ñi ngi siñaare léegi ne taabi jeex na ñi ngi yem fii di ñaan yàlla may ñu ñu teewee bés yi ay déwéni déwén te yàlla barkeel liggéey lëj na bi nga xam ne nii ñoom ñoo taxawee yii di encouragé shabab bi pour ñi gën a yittewoo xam-xam gën ci bàyyi xel yal na yàlla defal leen lu ñu bëgg maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama naataango yi asalaamaaleykum wa rahmatullah barakatu